Alioune Gérard maa ngi lay nuyu. Euh, voilà Alioune Gérard nga nekk membre du secrétariat exécutif bu mouvement euh, FRAPP euh, déjà naka nga gisee grève de la faim bi nga xamante ni jigéen ñi nekkee ci prison bu camp pénal ñu ngi koy amal ndax seeni condition de détention mu nekk ñoo xam ne ñëpp si ñoom ñu ngi leen di woy ay détenus politique naka nga gisee situation boobu d'abord Eh, ci jigéen yooyu ñooñu ay lingeer lañu ay brave dame lañu ñi nga xamante ne boobu ba léegi ñoo ngi def seen grève de la faim li nit ñi war a comprendre grève de la faim yooyu nga xamante ne lingeer yi daanaka surtout Aline Sitoé Diatta yi démarré nañ ko depuis loolu nekkul ngir ñoom seen intérêt kese ndax képp ki nga xamante ne jaar nga kaso xam nga ni ko kaso neexul donc ñoom bu ñu defee grève de la faim ngir wax. seen conditions yi mais aussi conditions yeneen détenus yi nañ ko daal di améliorer pour man ñooñu dañ leen war a encourager léegi nag lu ñu gis mooy ñoom bi ñu commencé seen grève de la faim bu ba léegi au lieu que njiit yi ki ci mel ni ki maanaam ki jiite euh, secteur jigéen ñi maanaam directrice bi au lieu que mu rencontre leen mu waxtaan ak ñoom ñu xool naka la ñuy daal di saafara maanaam jafe-jafe yooyu la mais li ñu gis mooy que directrice bi dafa daal di yónni ay yeneen détenu ngir ko ñëw ñu attaqué maanaam détenu yi nga xamante ne ñooñu daal di def ne seen grève de la faim ngir intérêt détenu yëpp mu doon bi nga xamante ne dañ koy ñaawlu dañ koy daal di naqarlu di leen waxal ni que lépp li nga xamante ne dal na suñu jigéen yooyu lingeer yi surtout Aline Sitoé Diatta yi dama ne responsabilité directrice bi la mais au delà de responsabilité bi directrice bi la mais responsabilité également état du Sénégal parce que du dëgg yoon parce que ñii ñoo ngi ak ñaar métit premier métit bi mooy président Macky Sall daf leen daal di tëj parce que dañuy ànd ak Ousmane Sonko parce que dañoo ànd ak gis-gis ak Ousmane Sonko mais aussi seen deuxième métit bi mooy au-delà de tëj boobu noonu directrice bi moo ngi leen di daal di métital te ñun loolu mënuñu ko seetaan moo tax it ñoo ngi apporter suñu soutien ak suñu solidarité di wax ni ñoom ñoo ngi xeex ci ci biir wante ñun tamit dinañu xeex ci biti ngir ñoom ñu moom mee seen bopp maanaam ñu ñu ñu ki génn mais au-delà de ça également ngir ñu mun a saafara li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi nga xamante ne mboolem mu bi ñoo ngi koy daal di dund. Euh, ñu gis ni aussi euh, bu ñu sukkandikoo ci alerte yi nga xamante ni maître Ciré Clédor euh, def na ko récemment état wu santé Ousmane Sonko nekk na lu lu doy waar mais aussi mu delluwaat ci grève de la fin bi pour soutenir les femmes de de camp pénal bëgg en même temps ñu delloo ko prison bu Sébikotane naka nga jàngatee situation bu Ousmane Sonko. jàngat bi ma am ci loolu rek mooy que Ousmane dontale ñoo ngi koy daal di tëj ci anam yi nga xamante ne teguñu ko ci yoon Ousmane Sonko moo ngi continuer di xeex maanaam grève de la faim bii Ousmane Sonko moo ngi wax ak askanu Sénégal mais ci grève de la faim moom bii aussi Sonko moo ngi daal di wax ak ñi nga xamante ne mooy militant moom bi ak sympathisant moom bi ndax Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne que ñoo koy daal di salfaañi au-delà de Ousmane ko am na ay détenus yu ci gën a bëri seen ak ak seen yelleef ñu ngi koy daal di salfaañe moo tax it grève de la faim bi Ousmane ko def ñun da koy daal di encouragé te ne neexuñu parce que xam nga ni que xiifa ngir wax ne que day apporter soutien wam li ngeen yelle mu am yeneen détenus aussi yi ci toll gën saa ne trente six personnes dont benn Talib Sow ñu def ñoom tamit ay grève de la faim c'est parce que détenus politiques yii dafa am message bu fort bu ñuy daal di jox maanaam askanu Sénégal mais ak militant yi ak seen message bi xam nga mooy lan ñun ñoo ngi ci biir donte ne dañoo salfaañi suñu activité di xeex bi ñoom seen grève de la faim bii pour wax askanu Sénégal di leen wax ni que ñoom ñoo ngi ci biir di xeex la faim Ousmane bi tamit ñun euh, dañuy apporter suñu soutien ak suñu solidarité parce que duñu jàpp ni que du dëgg di yoon ñu continuer di tëj Ousmane Sonko ci ay mbirum euh, aussi euh, ñu bon fan yi gis nga fitna yi nga xamante ni moo am ci biir université Cheikh Anta Diop euh, bu Dakar étudiants yi taxaw temm ne nañ ubbi université bi campus social bi ñu mën a wéyal seen njàng mën a aussi de dellu si dëkkuwaay restaurant yi euh, autorité autorité universitaire yi daal di bañ ba tax gis nga démb euh, jàppante yu métti moo fa daal di amoon est-ce que d'accord nga ak étudiants yi wax nañu ubbi université bi alors que ñu ngi defaraat yàq-yàq yi nga xamante ni moo fi amoon ci événement yu weesu et les événements politiques. ñun tey dañoo war a am mbégte ak contentement ci bi ñu yëgee ni que étudiants yi ñoo wax ni que dañoo tijji nañuy tijji ICAT pour que ñoom ñu mën a dem jàng parce que ñun ñoo fi d'accord wax ni que étudiants yi bëggu ñoo jàng que eh, moo leen tax ñu demee ba ci seen jëmm bopp ñoom ñooy daal di sàkku pour que mën a jàng pour man loolu bonne nouvelle la. léegi nag li ñu war a wax mooy que ñëpp xam nañ ne que université bu Cheikh Anta Diop dama ne dañ ko teg ngir ay calcul politique parce que tey jii nii boobu ba léegi ñoo ngi gis euh, li fi xewoon donte ñun euh, d'accord ci ak ñoom wante ñun jàppoon nañ ne que boobu ba léegi ak tey bu su état du Sénégal bu amoon volonté ngir tijji université Cheikh Anta Diop dama ne fekk tijji nañ ko wante état du Sénégal dafa nekk ci ay calcul. état du Sénégal dafa naan moom fekk pareguma équation Ousmane Sonko maanaam fekk deux mille vingt quatre pareguma mooy li may def université Cheikh Anta Diop bu Dakar dama koy daati donc ñun ñu jàpp ni ay calcul politique la et que su ñu fee université Cheikh Anta Diop mais de Dakar bu ñu li nga xamante avenir yu ndaw la nekk avenir yu Sénégal foofu la nekk boobu maanaam waruñu ko politiquer et donc man tey ñun dañuy après suñu soutien ak suñu solidarité étudiants yooyu ne mais imagine toi tey ay étudiants yi nga xamante ne. ñoo ngi waroon soutenir marché léegi ñooñu nag lan di def wala étudiants yi nga xamante ne dañoo dañ doon xaar seen i notes yii ngir mun a génn continuer mais seen jàng ñu léegi nag étudiants yooyu nag ndax est-ce que ñoo ngi jël tenir en ak yooyu yëpp moo taxit pour man décision bi nga xamante ne état du Sénégal dafa ko daal di jël pour man loolu décision politique la wax ji lii la et donc nañu tijji université bi xale yi continuer di may di jàng voilà euh, ñu wax un peu ci phénomène Barça wala Barsaq bi ba léegi gis nga ni muy daal di persister gis nga ndaw yi ni ñuy demee tout le temps ñu ngi dëpp ay bateau tout le temps ñu ngi delloo ay migrants euh, dara daal mënatu leen tëye pour yow ban plan de lutte wan ban politique fi ñu nii moo mën a tëye vraiment les jeunes ñu toog. plan de lutte bi xale yi wala ndaw ñi dañoo gis tey seen espoir c'est-à-dire état du Sénégal. di ko daal di fooyee ndax boo nekkee ci ab réew bi nga xamante ne dafa métti lool woyofal mujj naa nekk di biisal dund bi cher loyer bi cher ak yeneen ak yeneen ak yeneen nga nekk ci dëkk bi nga xamante ne au lieu que ñu favoriser ni ñuy woowee doomu réew mais doxandam la ñuy daal di favoriser nga nekk ci ab réew aussi bi nga xamante ne sa njiitu réew bi ñoom ñoo daal di signé ay ay accord ay accord mais de partenariat moo économique ay accord de pêche yi nga xamante ne dafa daal di permettre doxandam bi ñëw fii ci même réew di def lu ko neex mais boo nekkee ci dootoo amati espoir et donc ñoom c'est très normal que ñu topp maanaam suñu accord yooyu ne parce que bu ñu signé accord yi ñu ñëw suñu géej ñu jël suñu jën yi mais c'est très normal mais que ñu topp bi ñun nag am nañ ci suñu propre lecture bu ñu sañoon suñu ndaw ñii ñu des fii ci Sénégal ñu xeex fii ndax doomu réew moom mooy daal tabax réew wante nag mënoo xam ku ci nekk euh, euh, daanaka li ngay daal di yëkk mais si fii ni moo tey état du Sénégal dafa war a am une lecture scientifique par rapport ak phénomène bii ndax ñaata at ñoo ngi lay wax phénomène Barça wala Barça mais chaque année dafay mel ni ni que bii ci la mbir mi mooy gën a ëpp maanaam maanaam kii boobu la mooy phénomène boobu la moo tax état bi dafa war a xoolaat boppam espoir bi nga xamante ne ab si néew bi nga xamante ne Ousmane Sonko daf ko andi woon ci xelu jeunes yi espoir boobu tamit bu ñu ko jëlee dugal ko mais ci ci kii di kasu loolu dafay di gën a tax di encouragé maanaam nit ñi gën a mu kii ni mooy désespéré moo tax xale di gën a jël muy gaal bi wante nag ñun ñoom ñun ñu ngi leen di wax ni que nañu des fii ci Sénégal ndax gëm nañ ni que 2024 bii incha allah page bii dinañ ko daal di tourné page bi page intradite ko daal di tourné enfin Sénégal moom boppam Afrique moom boppam. Alioune mais li gën a doy waar ci mbir mi moom mooy léegi jigéen ñi aussi dañuy dem di jël gaal yi di ànd ak sax seeni doom aussi looloo ci xalaat. ak risque yi ci nekk loolu ñu daal di yeggee ba bu ci njëkk ba xale yi kese daanaka ñoom ñoo doon mbëkk ji bu ñu demee ba ci ay xale jigéen ba yor seen doom mais di jël gaal gi pour man c'est extrêmement grave foofu nag la état du Sénégal war a def taxaw ci seetlu. mu xam ne bu baax a baax ni que bu ñu yéegee fii c'est parce que mais wante nag bu ñu nekkee nag ci ab bi nga xamante ne chaque jour yaa ngi dégg ministre diw détourné na DG nangam détourné na wala DG wu nangam mu ngi daan def recrutement ñaama neex dama ne da ngay dem ba da ngay perdre espoir te xale jigéen yooyu tamit commencé nañu dugg foofu noonu et donc yooyu yëpp ay mbir la yi xamante ne ñun bu ñu sañoon duñ ko doon gis fii ci biir ñun bu ñu sañoon suñu ndaw ñi suñu jigéen ñi Sénégal fii dañuy des ñu continuer di xeex fii ba keroog ñuy soppi Sénégal ndax du France du Angleterre bu Espagne ñu ñëw fii ci Sénégal soppi Sénégal ñun doomu Sénégal ñun ñoo war mën a soppi Sénégal ñun doomu Afrique ñun ñoo mën a soppi Afrique et donc kii bi phénomène bi c' est extrêmement grave c' est parce que chaque jour yaa ngi dégg parce que ñu naan la bateau nangam réer la donc yooyu yë ñoo ngi activer également ngir mu def ay recherche puisque enfin ñi ñi nga xamante ne ñoo réer ne ci géej gi au moins seeni famille mu ngi leen daal di gis waaw. waaw question Alioune Gérard euh, moom mooy euh, fi ñu toll nii dafa mel da ngay indi façon xeex euh, bu bees ngir jàmbaarloo ak régime mu Macky Sall ak situation bi nga fi lim nii ngeen fas yéene organiser ay marche ay manifestation est-ce que mën nga si yaatal un peu. waaw li ñu ci mën a wax rek mooy que xeex dina wéy. dama ne président Macky Sall xam ne diggante li ko ak ñun mais incha allah rabbi mais di yomb ci moom et na xam ne ni que lépp lu mu munti def deux mille vingt quatre page benn bokk yaakaar dinañ ko daal di tourné xeex bi nag suñu toll mi xeexu xel la xeexu stratégie la mënuñu wax lépp wante xeex bi dina daal di wéy déjà présent bëri na ay collectif yi nga xamante ne ñoo ngi def seen activité ndànk-ndànk te yooyu yëpp bokk na ci ci ci li nga xamante ne moom moo nekk xeex bi la donc FRAPP ci lu mu nekkoon démb ak barki démb ci moo ngi ci loolu noonu toujours donc ñun ak président Macky Sall au-delà de président Macky Sall maanaam page impérialisme bii dañ ko daal di tourner merci beaucoup Alioune Gérard Koita may fàttali ni yow yaa ngi bokk ci secrétariat exécutif bu mouvement FRAPP ñu koy remercier bu baax.